auzu billahi min aseytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim wala xawla wala xawata ila bila aliyul azim maa ngi nuyu waa senegal di nuyu àddina di nuyu ñëpp man Ndeye kumba Coulibaly Madre Peace ah, rumeur bi ma dégg muy daw nag ci réseaux sociaux yi internet bi ma leen di wax nag ne maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci sang sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa di sant Sidi eh, Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu taala anhu ak di sant sama wasila Sidi Aboubacar si Malick radiyallahu taala anhu di leen wax ne rek maa ngi nii toog maa ngi sant yàlla bu baax ah dara jotuma nag maa ngi sant di sàkku nag yàlla sunu borom eh, na ma may gudd fan maa ngi nii toog ci sama njaboot toog ci sama wati borom kër dara jotuma rumeur bi dal nag dara jotuma maa ngi sant bu baax. maa ngi nii di ñaan nag yàlla sunu borom gën a ñot di sama fan may ma gudd fan ak wër ma yàgg di bégal waa Sénégal di ñaan bu baax yàlla lafal ma cat ak làmmiñ ak musiba ak seytaani ah ci darajay sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndey kumba nag mi ngi nii di sàkku si ñaan nag ci ñaan ci Sénégalais di ñaan ci kilifa diine yi kilifa aada yi ñu gën a ñaanal ma ma yàlla gën a ñot di sama fan ma gudd fan wër ànd ak eh, tawféex mën a yàgg di leen bëggal ci biir réew